sëriñ mustapha mbàkke sëriñ mustapha mbàkke mi gane àdduna ci atu 1941 ci dëkk bu ñuy wax busra busra di dëkk bu maamam goroon di cheikh mohamadou lamine baara mbàkke ibnu sëriñ tuba seexul xaddim ci dëkk boobu di busra fa la sëtub cheikh mohamadou lamine baara mbàkke bii gane àdduna di sëriñ mustapha mbàkke di doomu soxna assu mbàkke moom cheikh mohamadul bachir mbàkke ibnu sëriñ tuba seexul xaddim ak ku ñuy wax sëriñ abdul aziz baara moom cheikh mohamadou lamine baara mbàkke ibnu sëriñ tuba seexul xaddim sëriñ Moustapha Mbàkke bi matee am aw tur waajuram sëriñ Abdul Aziz Baara sëriñam ba waajuram wàllu ko tudde di sëriñ Moustapha Mbàkke ibnu sëriñ Touba Seexul Xadiim mu bokk ci turandooy mu Mamadul Moustapha Mbàkke yi moom sëriñ Moustapha Mbàkke Abdul Aziz waaye nag am na ñu bokkal kii di soxna Assu Mbàkke Basiiru ñu ràññee ci ñaari doomu aadama ak moom muy ñett ñu ràññee ci ku ñuy wax soxna Xadi Mbàkke bintu soxna Assu Mbàkke Basiiru bintu sëriñ Abdul Aziz Baara ak ku wax sëriñ Basiiru Mbàkke Bachiru ibnu sëriñ Abdul Aziz Baara ak moom sëriñ Mustapha Mbàkke ibnu soxna Assu ba Bachiru ibnu sëriñ Abdul Aziz Baara waaye nag soxna Xadi Mbàkke moo ko magoon waaye moom moo magoon ba Bachiru Mbàkke bi matee dal alxuraanul karim moom sëriñ Mustapha Mbàkke Abdul Aziz Baara sëriñ Mustapha Lo moom sëriñ Ndaam Abdurahmaan Lo lañ ko jébbaloon ci ndaam daaru Xalimul Xabiir moo ko dalal alxuraanul karim waaye nag toogu fa ba mokkal lii di Malick Bassine Sy ci dëkk bu ñuy wax mbaabaan fa la nekk nag ba mokkal alxuraanul karim ginnaaw sëriñ abibu rasool si ci dëkk boobu di mbaabaan jébbalaatoon nañ ko ko ñuy wax sëriñ seex sëy ci Touba daarul xuddoos ngir mu wéel fa am njàngam jamono ji muy jàng ci sëriñ seex sëy ci Touba daarul xuddoos ci kër sëriñ baara loo la nekkoon ci Touba sëriñ baara loo nag taalibe waajuram la sëriñ Abdul Aziz Baara mook sëtub sëriñ baara bi ñuy wax sëriñ xaadim moodu baara ñoo fa nekkandoo woon ak sëtub seex moodu Moustapha Gaynde Fatma ñoom ñett ñooñu ñoo nekkoon ci kër sëriñ baaraloo daa jàng ci sëriñ Seex Sëy ginnaaw sëriñ Seex Sëy nag lañ ko jébbal sëriñ Abibu Mbàkke ci wàllu njàngum xam-xam muy sëriñ Abibu Mbàkke imaam ci péncum sëriñ Sohaybu bu Mbàkke ginnaaw sëriñ abi Abibu Mbàkke imaam nag la ko waajuram wa jël yóbbu ko nag ci réew mii di gànnaar ngir mu dem nag yokk wàllu xam-xamam ci kàllaamay arab ba gën cee géeju ginnaaw gànnaar nag la dem nag ci réew mii di Tunisie Tunisie nag la mujjee jànge ci wàllu xam lii di kàllaamay arab ci miléem réew di Sénégal di fi mu cosaanoo nekk na ku géeju nag ci wàllum njàng ginnaaw bu ñibbisee nag ci réew mi di Sénégal la ko waajuram nag yóbbu nag ci dëkk bu ñuy wax mbaam jigaan dëkk boo xam ne nii waajuram ma nga fa woon féete woon fa mu nekk nag jëwriñu tool ya wala mu nekk nag jëwriñu donga ya mbaam jigaan googu sax la taxawalee nag lii di kër ñu boole ko soxna suñuy wax soxna Aminta Mbàkke bintu Sëriñ Mbàkke Madina soxna Aminta Mbàkke bintu Sëriñ Mbàkke Madina la njëkk dëkkoo moom doomu Sëriñ Abdul Aziz Baara boobu nag di mbaam jigaan di yar di jàng ak di jàngale comme ni ko yoonu murit nag baaxoo di defee ngir mbooloo mi ko topp ngir jëmmi ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim dëkk boobu di mbaam jigaan itim nag ñu bare bare bari fekk nañ ko fa ngir ko lëre ñu man cee ràññee maamam sëriñ tubaa cheikh abdul ahad mbàkke mi nekkoon xalifa général des murit ndax sëriñ tubaa cheikh abdul ahad mbàkke daana wax sëriñ mustapha mbàkke moom sëriñ abdul aziz baara di ko wax ne mbooleem mustapha yi ma xam de ma ci gënal amoon kóolite ci sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Aziz ba fooboon kër sëriñ Touba gi nekk ci réew mi di France ñu gën koo xam ci Marseille ne ko dee fa jiite tabaski ak korite sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdoul Aziz itam sàmmoon na ndigal lool ba di ko def saa su ne ba tax na itam warlonte woon nag yoonu murit saa bu demee France ngir jiite ji tabaski wala korite balaa ñibbi si bind kaamilub alxuraan ndigal loolu ko waajuram sëriñ Touba Cheikh sëriñ Moustapha Mbacke ko te daana ko jëfe ba tax na itam kii di sëriñ na ay way ci maamam jooju Touba Cheikh Abdou Lahad Mbacke ngiru kóllëre ak fonk gu ko Cheikh Abdou Lahad Mbacke fonk sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke ko amoon kóllëre la ak jëmm ji di sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul ba tax na sëriñ Abdou Khader daana ko nemmeeku saa su ne sëriñ Moustapha Mbacke itam daana fa dem di ko ziyaar ji saa su ne sëriñ Touba Cheikh Salihu Mbacke moom wóllërew sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul la woon ba tax na daana ko wax ne dañ laa boole ci suñu ñoñ loolu tim taxoon saalihu mbàkke ba tax na itam fob na doomam tudde ko sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke fobaat na baneen doomam bu jigéen itam tudde ko waajuru sëriñ tubaa seex saalihu mbàkke di soxna maam faat jaxate loola itam taxoon na sëriñ tubaa seex mbàkke sàmmoon digganteem ak sëriñ mustapha mbàkke ba bi muy lu daaraam ji ñu tudde malka sëriñ mustapha mbàkke moom sëriñ abdul aziz baara la joxoon ndigal la ba tax na sëriñ mustapha mbàkke moom sëriñ abdul aziz baara ci benn fan la ñu gor daara jooju di daaray malka loola itam yéemoon na sëriñ tubaa seex saalihu mën a gore daara jooju ci benn fan sëriñ Moustapha Mbàkke nag mi ngi ko àndaloo nag magam ja nag sëriñ Mbàkke soxna loo kóllëre googu itam sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke ba ko sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Abdul Aziz Baara muy daaru Tanzil ginnaaw bu fi sëriñ Moustapha ko itam sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbàkke fab na doomu sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Abdul Aziz Baara jébbal doomam ngiru kóllëre sëriñ Soy bu Mbàkke kasaalika ba tax na kii sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Abdul Aziz Baara Mbàkke tudd na sëriñ Suhaybu Mbàkke moomu doom Cheikh Murtada Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ko amoon kóllëre la ak jëmm ji di sëriñ Mustapha Mbàkke moom sëriñ Abdul Aziz Baara ba tax na itam daana ko seeti ci dëkk boobu di ñaani di tooli sëriñ Mustapha Mbàkke moom sëriñ Abdul Aziz Baara Cheikh Murtada Mbàkke itam ñëw na ci dëkk bii di Daaru Tanzil ngir gane si sëtam boobu di sëriñ Mustapha Mbàkke Abdul Aziz Baara ba tax na itam jëmm ji di sëriñ Mustapha Mbàkke moom sëriñ Abdul Aziz Baara tudd na doom kii di Cheikh Murtada Mbàkke ibnu Xaadimu Rasuul noonu mu ko amee woon ak i maamam yu góor noonu itam la ko amee woon ak maamam yu jigéen yi muy mbooleem bintu xaadim rasuul yi ñi ci bari ci ñoom itam tudde na leen doom njaboot gi mu bokk itam di njabootu guy mbind ku fa amoon kóllëre la ba tax na waajuram di sëriñ abdul aziz baara daana wax ne sëriñ mustapha mbàkke mii de fu mu dem lislaam kenn du ko fa jam kenn du ko fa yab loola itam sëriñ mustapha mbàkke abdul aziz baara itam jëfee na ko doxee na ko ba ni mu génnee àdduna waajuram sëriñ siidi mbàkke moom cheikh mamadou lamine baara mbàkke te féete woon ci dëkk bi ndar géej soxna Defsa bu ñëwee Touba na sëriñ Moustapha Mbacke yow laay dalal ba keroog may delluwaat nag ci dëkk boobu ma féete di ndar géej waajuram sëriñ Basiiru Mbacke xujja jëng ku fonkoon doomam jii di sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdul Aziz Baara la ba tax na faboon na doomam jébbal ko sëriñ Moustapha Mbacke Abdul Aziz Baara waajuram sëriñ Cheikh Sidine Mokhtar Mbacke moom Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke ku fonkoon jëmm ji la di sëriñ Moustapha Mbacke Abdul Aziz Baara njabootu guy mbind moom ñépp fonkoon seen doom jii di sëriñ Moustapha Mbacke Abdul Aziz Baara ñim bokkal waajur itam ñépp a ko fonkoon ñi defoon ko mag ñi defoon ko rakk ba tax na guy mbind amu fa woon frontière daarul xuddoos ak guy mbind moom benn la woon waajuram sëriñ cheikh mbàkke gaynde fatma ku ko fonkoon la waajuram sëriñ mbàkke màddina ku fonkoon jëmm ji di sëriñ mustapha mbàkke abdul aziz la ba tax na soxna si sëriñ mustapha mbàkke abdul aziz njëkk a dëkkoo sëriñ mbakke màddina moo nekk waajuram muy soxna aminta mbàkke bintu sëriñ mbàkke màddina moom meññ sax taawu sëriñ mustapha mbàkke abdul aziz baara bi moom sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Aziz Baara di borom daaru Tanzil téewul itam waajuram sëriñ Mbacke Madina teedeel na ko lu am solo moom doomam jooju di sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Aziz Baara ba tax na itam fabaatoon na baneen doomam jébbal ko ko muy soxna Daba Mbacke bintu sëriñ Mbacke Madina waajuram sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbacke mi nekk xalifa daaru ku ko fonkoon la te daanaka nemmeeku lu di sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Aziz Baara magam sëriñ Mbacke soxna loo xaritam la woon wóllëreem la woon ba tax na daana seeti lu baree baree bari ci dëkk boobu di Taïf Mbàkke wala mbooleem fu sëriñ Mbàkke soxna loo nekk ba tax na kii di sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Abdul Aziz Baara faboon na doomam tudde ko sëriñ Mbàkke soxna loo lépp lu sëriñ Moustapha Mbàkke daa yënguti itam sëriñ Mbàkke soxna loo mang ca ginnaawam ndax daara jii di daaray Malka te sëriñ Tubaa Seex Saaliwu Mbàkke joxoon ko sëriñ Moustapha Mbàkke ndigal ngir mu gor ko sëriñ Mbàkke soxna loo feeñoon na ca njabootug maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru sëriñ Amsatu Mbàkke bu maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru Mbàkke moom sëriñ Abdul Aziz Baara la woon ba tax na kii di sëriñ Moustapha Mbàkke Abdul Aziz Baara bu maam Ceerno lu bu Mbàkke Kajoor moom itam wëlle réew sëriñ Moustapha Mbàkke Abdul Aziz Baara la sëriñ Moustapha Mbàkke Abdul Aziz daana ko seeti lu bare bari ci dëkk boobu di Mbàkke Kajoor sëriñ Omar Mbàkke bu Mbàkke Kajoor moom itam wëlle réew sëriñ Moustapha Mbàkke Abdul Aziz Baara la sëriñ tubaa seexul xaddiim ñoom ñoo nekkoon nijaayu sëriñ mustapha mbàkke abdul aziz baara soxna assu mbàkke moom sëriñ basiiru mbàkke moom meññi jëmu ji di sëriñ mustapha mbàkke abdul aziz baara ki di sëriñ mustapha basiiru mbàkke nijaay la woon ci sëriñ mustapha mbàkke abdul aziz baara daana ko wax ne mustapha man dama laa fonk lool su ma la gisee sama xel day dem ci sama mag ja sëriñ muudu abdulaay mbàkke ndax benn ngeen ndax da ngeen nuroo taxoon na itam sëriñ mustapha mbàkke basiiru fonkoon na jarbaatam boobu di sëriñ mustapha mbàkke abdul aziz baara ba jébbal ko ko ngir nuru gum koy nuru magam ja di sëriñ moodu abdoulaye mbàkke moom sëriñ basiiru sëriñ moodu abdoulaye mbàkke moom sëriñ basiiru mbàkke nag ak soxna assu mbàkke mi meññ sëriñ moustapha mbàkke basiiru ñoo bokk soxna mareema loo moom sëriñ ndaam abdourahman loo ak kii di cheikh mohamadul bachir njabootu cheikh mohamadul bachir moom sëriñ moustapha mbàkke amu fa woon frontière ndax ñépp ay nijaayam lañ gédee ko amoon kóllëre lañ ak sëriñ moustapha mbàkke moom sëriñ abdul aziz ba tax na kii di sëriñ moxtaar buso sëriñ moustapha mbàkke wóllëreem la woon woon ba tax na taawam bii di sëriñ Abdul Aziz Moustapha jaar na ci loxoy sëriñ Maxtaar Buso moomu ngirum njàng sëriñ Moustapha Mbàkke Saaliw Abdul Aziz Baara la woon ba tax na ñoom ñaar ñoo yaroondoo ci Gosaas ci seen loxoy maam ja soxna Mariama Lo te ñoom ñaar itam lu ëpp ci seenu tànk itam ñoom ñaar ñoo ko ànd defandoo ko tax na itam kii di sëriñ Moustapha Mbàkke Saaliw itam faboon na doomam jébbal ko sëriñ Moustapha Mbàkke moomu sëñ Njaay moom itam wala réew sëriñ Moustapha Mbàkke la woon ba tax na itam bari na fu ñu ànd bari na luñ def ñoom ñaar ci gàttal daal mën nañoo wax ne képp ku jamonoon teeg sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Aziz Bara wóor la réew sëriñ Moustapha Mbacke nga woon sëriñ Moustapha Mbacke daana la nemmeeku daa nga ko nemmeeku ndax xemmeem gu muy xemmeem ci yow sëriñ Touba Seexul Xadiim moom itam xemmeem gooy xemmeem bëgg gum bëgg sëriñ Touba Seexul Xadiim yoonu murit ñépp wóor la réew sëriñ Moustapha Mbacke lañ woon taxoon la réem ci ëttub ku baax ki sëriñ Touba Seexul seexul xaddiim waxoon na kii di sëriñ fàllu mbàkke jumaada ngir mu dajaleel ko ñi sant mbàkke buso ak loo te seeni at tollu ci juróom fukki at yéeneem mooy ñooñu ñépp bu xamoon seen tur at mu jot moom moo leen di warloonteel ab dund bi fàllu mbàkke nag dafee lii dina xayma bi ba ko kayit wa fan yu néew lañ ca teg kii di sëriñ mustapha mbàkke génn àdduna yéene jooju mu amoon ci warlonteeg ñi sant mbàkke buso ak loo seeni at toll ci juróom-ñaar fukki at ngir bu xamoon seenub lim at mu jot mu warlanteeg ñoom ab dund yéene jooju yàlla na ko suñ borom fay ku nangu woon a liggéey la moom jëmm jooju di sëriñ Moustapha Mbàkke ba tax na taxawal na ay daara ay daara ci biir réew mi ñu ràññee ci ay daara yu nekkoon ci dëkk bu ñuy wax waalo amoon na itam ay daara ci dëkk bu ñuy wax Andambe Andambe nag mi ngi ci suuf si nag di Casamance amoon na ay daara itam ci dëkk bu ñuy wax Kébémer amoon na ay daara itam ci Louga amoon na ay daara itam ci dëkk bi di Daaru Tanzil amoon na ay daara itam ci Ndakaaru Njaay ak daara jum amoon ci Mbaam Jigaan ci di jàng ak di di yar ak tarbiya ngir kat ñi ko sëriñ tubaa seexul xaddim booleel bu ëllëgee mu mën leen a teg nag ci aw yoon ak nag lii di ak taalibe ay kër itam amoon na ko ci mbooleem dëkk bu waajuram amoon kër moo xam mbàkke kajoor moo xam guy mbind moo xam luga moo xam ndakaaru moo xam kebemeer ak faneen ak faneen ak faneen ndax ku lim kat lu sëriñ mustapha mbàkke amoon daa juum ak dëkk bii nag mu gor wala quartier bii nag mu gor ci tuuba ci ndigalul maamam sëriñ tuubaa seex saaliwu mbàkke di daaru gis doo yab lislaam ndax jàmbaar gu mu nekkoon jàmbaar jooju mu nekkoon moom sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Aziz Baara tax na itam ci dëkk bii du lugaloo tabax na fa jumaa ci 65 jours muy ñaari weer ak ñaari fan mu nekk nag ku tabe ku yéeme koo xam ni alalam du ko boole kenn am na benn bis amul woon nag lu dul benn oto mu fab ko may ko ku ñuy wax sëriñ Fàllu Mbacke Jumaada jamono jooju maître Madika Ñaam mii nekk na ku rëkk nag ci maître Abdoulaye Wade moo ko abaloon otoom ci diirum weer fab sa oto bi maye ko sëriñ fàllu mbàkke jumaada nag la mayoon oto ba bis jot na mu wóolu na kii di sëriñ fàllu mbàkke jumaada di ko wax ne kaay ma laayee la biir mu di ko xamal ne nit ki sooy ànd ak moom te bañ ñu yàpp ko war ngaa def foo romb mu toll fa loolu nag moom moo taxoon ma fab oto bi may la ko ba tax na ku la gis xam ne sëriñ Moustapha Mbàkke ngay àndal jëf jooju nag mu defoon moom sëriñ Moustapha Mbàkke war naa tax itam na képp kuy kilifa itam nga ko ci jëf jooju sëriñ Moustapha Mbàkke ci boobu jàngale nekkoon na itam ku yéeme moom sëriñ Moustapha Mbàkke ba tax na itam nit daana ñëw ak i jafe-jafe mu fajal la ko moo xam jafe-jafey àdduna wala jafe-jafey nag lii di wér-gu-yaram ndax ku ci yéeme la woon moom sëriñ Moustapha Mbàkke ci daa ko saafara yéeme googu mu yéeme woon ba tax na bépp jafe-jafe bu doomu aadama am boo ñëwee diis ko ko mu fajal la ko loolu itam taxoon na itam daana tukki nag ci biir réew mi ak bitim réew ndax bari ci réew yun daa dem ñu ràññee ci réew mu ñuy wax France ci dëkk bu ñuy wax Marseille ndax nekkoon na fa sax imaamu lii di julliy korite ak julliy tabaski Italie itim daana fa dem Espagne itim daana fa dem États-Unis d'Amérique itim daana fa dem daa seeti suñu mbokku taalibe yi lii di Afrique itim daana dem ci réew mii di Côte d'Ivoire daana dem itim ci réew mii di Nigéria rawatina nag ci réew mii di gàmbi kon ku daa tukki la di nemmeeku ji taalibe yi tukki yooyu mu daa def di nemmeeku ji taalibe yi waajuram di sëriñ Abdul am solo di wax ne Moustapha Mbacke moomu de fu mu dem kenn du fa yab lislaam kenn du fa jam lislaam ndax lépp lu lislaam di santaane ma nga ca kon moom ab yaram akub xam-xamam waa waajuram seede na ko ba tey ci jëfe sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdul Aziz Baara mën nañ cee ràññee ndigal li ko maamam joxoon di sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ngir gor loo ko daara jooju di daaray gor ci atum 1995 ginnaaw bu mu ko goree ci gor boo xam ne nii yéeme na lool ndax ci benn fan la sëriñ Moustapha Mbacke gor daara jooju jëwriñu daara ja fa newoon di sëriñ Abo Guèye defal na Mbàkke ay way ngir yéemu gu mu yéemu ak pasteef gu sëriñ Moustapha Mbàkke amoon pasteef boobu mu am ba gor daara jooju ci benn fan sëriñ Abo Guèye nag defal na ko ay way yu yaatu ca biir way ya mu way kii di sëriñ Moustapha Mbàkke ma ngay wax jikko ju sëriñ Moustapha Mbàkke jikkoo woon muy nangoo sàkku xam-xam ca ba mu ko matee sàkku nangoo jaamu suñu boroom ginnaaw ba mu amee xam-xam nangoo topp gum nangoo topp ci ay maamam di ay kilifaam ak pasteef bu mu amee moom jëmm jooju di sëriñ Moustapha Mbàkke rawatina nag liñ am koo bokk ak ñëpp boole koog nag am xam-xam boo xam ne nii macha allah lu la waay laaj ci diine nga tontu ko sëriñ Abo Guèye daal ne loolu lépp nag sëriñ Moustapha Mbacke làmboo woon na ko te boole koog nag amal njariñ képp koy jullit mooy melokaan gu mu yore ak jikkoy doomu soxna ju mu yore ba tax na itam képp kuy kilifa war koo mën a roy nag ci jikk jooju bu ko xamalee doomu aadama yi loolu daal mooy sababu way yooyu ko sëriñ Abo Guèye way moom jëmm jooju di sëriñ Moustapha Mbacke ñu teew la way yu ko sëriñ Abo Guèye 1995 ginnaaw bu sëriñ Moustapha Mbacke maamam sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke joxoon ko ndigal daara jooj di daaray got ngir mu gor ko sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdul Aziz Baara gor ko ci benn fan li Abdil Aziz zalilun wafa bi izzin wa majdin du'i Mustafa fa aflahu kal farxadayn irtixa numul ghisaali kalay si فصد يرضا أرضعت أمه حنونا محبا وجيه الرفا أريب أديب بهي زكي بحير سموت سقي كفى شجاع صنوع عيوف حي مريد صدوق لسد شفاء فمن حبه حبه غير من له شخوة بادعاء اختفاء له رادس الخلق هذا الملا حباه العليم تم tamanna sifa ayaaza almasaaya fa madxi lakum bila kulfatin wa intixaalin afa wala abtagi gayra ridwanikum bihi gawlu saa raasiqun kasafa taqabbal bifadlin hadaaya alfata shucaybin bixubbi alimaami iktafa fama gadgada almaatixu alqacra aw yacuddu ilisi alaayi xattu safa fama gadgada almaatixu alqacra aw yacuddu ilisi alaayi xattu safa sëriñ Abo Gueye wayoon ci atu 1995 sëriñ Abo Gueye itam wayaatoon na nag yeneen way kii di sëriñ Moustapha Mbacke ba tey itam ñu way kii di sëriñ Moustapha Mbacke ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Makhtar Lo xaritu sëriñ Moustapha Mbacke la woon te wóllëreem la woon taalibe itam sëriñ Moustapha Mbacke la woon ba tax na itam mook sëriñ Moustapha Mbacke ànd nañ fu bare bare bari moom Makhtar Lo moom itam way na jëmm ji itam di sëriñ Moustapha Mbacke xam naa ku delluwaat ci marché bi daa gis way yi sëriñ Makhtar Lo way sëriñ Moustapha Mbacke ba tey réew mi ñuy wax France nekkoon na fa imaamu julli tabaski yi ci diiru fukki ati suñu boroom ba tax nañ tim lii di discours yi moom moo ko daa bindal boppam ñu indil leen ci rek benn discours ci doon def discours bi ñu leen tànnal nag la ko defoon ci réew moomu di France ci dëkk boobu di Marseille ci at moom itam moom moo jiite woon nag lii di julli korite ga ci at moom itam la jàngoon discours bi bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi hadana ila al islami diina mustafa al karimi sallallahu taala alayhi wa sallam أبعد فإني أهنئكم تهنئة حارة بمناسبة هذا اليوم الجليل يوم عيد الفطر المبارك أعاده الله إلينا وإلى الأمة الإسلامية خاصة باليمن والبركة discours bi nag noonu la ko Serigne Moustapha Mbacke tàmbalee waaye soo ba ci biir discours bi nag Serigne Moustapha Mbacke mi ngi ciy wax njëriñul koor ak naka la ko suñ borom santaane ak itam ñi jiitu ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam naka lañ daa woore ma ngi koy wax itam njàngaleem ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddim ci biir discours bi pëstëf ci yoon wi fonk jaamu suñu boroom fonk nag lii du weeru koor bañ yàq nag te nangoo liggéey ndax lislaam lool moo tax rek mu wàcce ñu fi discours bu yaatu daal la sëriñ Moustapha Mbàkke defoon ci atum 1979 ca weeru korite wa dem jiite woon nag ci dëkk boobu nag di Marseille nekk ci France ñu teewlu nag mujjantalu discours ba antahaytu fi hadihi alfursa athamina li abtahida ila allahi tabaraka wa taala fi xushuuxin wa idlal an yataqabbala minna wa minkum wa an yusaddida xuttaakum xatta taudu ila Sénégal wa dawikum ghanimina salimina mukramin ba tey ci liggéeyub sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdoul Aziz Baara tànnalaat nañ leen beneen discours boo xam ne ni mi ngi ko bindoon ci tabaski 1984 ci dëkk bu ñuy wax Valencia Valencia nag mi ngi ci réew moomu nag di France discours tabaski boobu nag ci sant suñ borom la ko tàmbalee julli nag ci ab yonentam di ngeen gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam جدا وحضوري معكم في هذه الجلسة لأداء عيد الأضحى هذه فرصة تمثل أسعد ساعات من حياتي محبرا لكم عن فرحتي العميقة من اعتقادات قوية وحكم ناضجة وعيد الأضحى من عصر القيادة الدينية به يجتمع المسلمون في مكان واحد في جو أخوي يشتركون فيه لأداء هذه الصلاة يتبادلون التهاني والتفاؤل loolu bokk na ci discours bi mu bindoon ci tabaski 1984 ci dëkk boobu di Valencia discours yi ñu leen jàngal nag indi lu luñ leen lépp discours yi ba tey ci jëfi sëriñ Moustapha Mbacke bi waajuram nekkee xalifa cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke di sëriñ Abdoul Aziz Baara màggalu cheikh Mamadou Lamine Baara Mbacke discours ñu daa def ci diirub li sëriñ Abdoul Aziz nekk xalifa discours yi ci baree bare itam sëriñ Moustapha Mbacke mooy ki ko bind ba tey sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Aziz Baara wayoon na maamam sëriñ Touba cheikh Abdoul Ahad Mbacke ay way ba tey itam bindoon na président de la république bi fi nekkoon di Abdou Diouf lettre la république tontu na ko ci ab di ko ca sant ko cëram ngir Pastef ak jàmbaar gu sëriñ Moustapha Mbacke nag doon def nag ci mileem réew bari na ay ministre yu bind lettre wala ay ministre itam yu ko bind lettre Djily Mbaye itam bindoon na lettre sëriñ Moustapha Mbacke bari na ay kilifay politique yoo xam ne ni tey jii bu ñu leen déncul ci kaso bi ginnaaw yàlla sëriñ Moustapha Mbacke la xam naa du ñàkk benn politicien bu ne man mii ca laa bokk le 28 mars 1983 bindoon na lettre itam président centre Afrique président centre Afrique boobu nag jamono jooju mi ngi tudd André Colomba André Colomba boobu nag jiite woon centre Afrique Serigne Moustapha Mbacke bindoon na ko lettre ci bëccëgug le 28 mars 1983 ma nga koy xamal ci biir lettre ba ginnaaw bu mu ko nuyoon ni ñuy nuyoo kilifa sargal ko itam ci réew moomu mu yor ak itam liggéey bu muy liggéey ci réew ma mi ngi koy xamal ne ci mois de septembre bii ñu weesu defaloon nga ma ay teraanga te teraanga yi jot naa ci maa ngi lay sant di la gërëm yow sama xarit boobu bëgg naa nag bu ma jógee France bëgg na maa jaar nag foofu ci réew moomu nga nekk di centre Afrique nemmeeku waale bu baax a baax taalibe yi fi nekk ak jullit yi ma ñëwee Afrique itam maa ngi sàkku ci yow nga may ma audience ndax ñu gisee lettre boobu la sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdoul Aziz Baara bindoon président centre Afrique di André Colomba ñu teewlu lettre bi sëriñ Moustapha Mbacke bindoon ci dëkk bu ñuy wax ngin gi néew adressé ko président centre Afrique ci bëccëgug le 28 mars 1983. Guinguinéo le 28 mars 1983. Monsieur André Kolimba, président de la République centrafricaine. Monsieur le Président, suite à votre très aimable réponse mois de septembre novembre dernier, je vous envoie à nouveau cette lettre pour vous remercier encore davantage de cette louable attitude de considération à mon endroit. Comme d'habitude, j'envisage de passer une partie du mois de Ramadan et la fête de la Corité à Marseille, en France. Comme je l'ai également toujours fait, j'ai l'intention de passer quelques jours en Centrafrique pour prendre contact avec la communauté sénégalaise. Mouride, résident dans votre pays. Durant ce séjour en Centrafrique, je vous serai très reconnaissant de m'accorder une audience si cela s'avère possible. Sur ce point précis, je vous serai gré de me faire parvenir une correspondance m'informant de votre accord éventuel sur cette demande. À toute fin utile, je vous fais savoir que je partirai du Sénégal en début du mois de juin. Je profite de cette présente occasion pour vous souhaiter une très bonne année 1983. Qu'elle soit pour tout le peuple centrafricain une année de bonheur, de paix et prospérité El Hadj Mouhamadou Moustapha Mbacke lettre boobu mooy lettre bi mu bindoon président centre Afrique ba tey ci jëfi Serigne Moustapha Mbacke dem na màkkatal mu ci atum 1980 ngir dem ziyaare ji ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam mu topp nag ci ginnaaw waajuram ba ni waajuram génnee àdduna ci atum di Serigne Abdoul Aziz Baara mu toog nag toogaayu waajuram ci atum 1990 ba atum 1998 moo sositim li ñu tudde màggalu Serigne Abdoul Aziz Baara baara jaboot gim séqal sëriñ abdul aziz baara itim ñu ci bare bare itim tudde na leen doom moo xam góor wala jigéen ngiru cofeel mu amoon ci ñoom xam na ne kat ñoo bokk sëriñ abdul aziz baara kon moom ku fonkoon ay doomi baayam la ñaari maamam yi itim kenn ku ne tudd na la doom muy soxna jaaratullaahi ak sëriñ tuuba seexul xaddiim ku yéeme la woon moom sëriñ mustapha mbàkke abdul aziz baara ku kiimaane la woon moom sëriñ mustapha mbàkke abdul aziz baara ba tax na bi muy génn àdduna ci atum 1998 loolu feeñ na si ci bisub talaata la bàyyikoo ci dëkk bii di Touba dem ci jumaada di dëkk bu waa waajuram nekkoon te moom it mu fonkoon ko lool moom jumaada ci dëkk boobu nag la sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Aziz Baara mi génnee àdduna ci ñi ko mujjee gis ci bis bi génnee àdduna wax nañu ne dara jotu ko ndax ñoo moom ñoo bokkandoo reerandoo waxtaan ba fatu ji jot kenn ku ne tàggatoo dem fatu ji biñ yeewoo ci alxamis lañ yëg sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Aziz Baara na sëriñ Moustapha Mbacke Abdoul Aziz Baara nag mi ngi génn àdduna guddik àllarba jàpp jàpp fajaruk alxemis fajaruk alxemis googu nag moo dëppoo woon ak benn fanu safar ci atu 1419 ci gàddaay gi alxemis benn fanu safar ci atu 1419 ci gàddaay gi dëppook muy jeudi 28 mai 1998 ci teewaayu ku ñuy wax ab taalibeem bu mu fonkoon lool mu nekkoon itam wala réem di sëriñ Amar Njaay ak sëriñ Fàllu Mbàkke Jumaada ak itam taalibeem bu ñuy wax sëriñ Abdul Aziz Jeng ñi bokk nañ ci ñi ko mujjee gis ci guddik àllarba gim mujjee wax ak ñoom ak itim lu takkoo takkoo takku ci ak njabootam ndax guddi googu kan mu waree génn àdduna di guddik àllarba googu yónni woon na ñenn ci ay sëfooram ñu dem jëli waa këram ñenn ñi ngir ñu ñëw ci dëkk boobu di jumaada jumaada jooju nag lañ ko jëlee indi ko nag ci dëkk bu sell bii di tuubaa ngir jébbal si ko fi nag lii di boroomam te wetu waajuram wa sëriñ abdul aziz baara ci armeer yu mag yi ginnaaw bi nag lañ ko yëgal sëriñam Abdul Bachir Mbàkke mi nijaayam ngir mu wax ko mu taxawu doomu sëriñ Abdul Aziz Baara boobu di sëriñ Moustapha Mbàkke Abdul Aziz Baara kon sëriñ Muntaqa Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Bachir moo ko taxawu moo ko jullee ñu jébbal ko boroomam ca wetu waajuróom wa sëriñ Abdul Aziz Baara di bërëb boo xam ne sëriñ Moustapha Mbàkke Abdul Aziz Baara moo ko tabaxoon ci nekkinam doon wax ne bis bu fi bàyyikoo nañ ko denc foofa kon ci bërëb bum taamul boppam lañ ko jébbal boroomam ay xalifaam nag nii la tëddee sëriñ Abdul Aziz Moustapha Mbàkke di kim faye waajuróom wa sëriñ Abdul Aziz Baara moo ko wuutu ci atum 1998 ba nëgëni ñu koy ñaaral moom sëriñ Abdul Aziz Moustapha Abdul Aziz Baara suñu borom guddal fanam te yokk ak wéram ak mboolem ñum séqal sëriñ Moustapha Mbacke Abdul Aziz Baara sëriñ Abdul Aziz Moustapha Mbacke Abdul Aziz Baara nag sag la ci yoon wi jëfam ràññeeku na fi lool sëriñ Moustapha Mbacke Abdul Aziz Baara nag am na bis ñu koy fàttaliku muy ñu tudde ak màggal màggal gi nag njaboot gi ñu ngi koy jàpp ci bis yi mujj ci weer wi di weeru baraxlu ngir di ci fàttaliku seen waajur wa sëriñ Moustapha Mbacke Abdul Aziz Aziz Baara ci suuf si ko maamam joxoon sëriñ saaliwu mbàkke xalifa général des mourides di daaru tanzil am na baneen bis nag buñ koy fàttaliku ci dëkk boobu mu génne woon àdduna di jumaada di benn fanu safar waa jumaada itam jàpp nañ bis boobu nag di ci fàttaliku sëriñ mustafa Mbàkke Abdul Aziz Baara ngir di wax ne kat bi mu demee ba mat génn àdduna seen dëkk boobu nag la taamu ngir génn si fa àdduna lool moo tax itim benn fanu safar googu def nañ ko bisum ñaan ngir jagleel ko sëriñ Moustapha Mbàkke Abdul Aziz Baara ñuy ñaan mbàkke ak kii di sëriñ abdul aziz baara mi doomu cheikh du lamine baara mbàkke ba yàlla nañu ko suñu boroom fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te wanale ko nag mbooleem maamam yim doon liggéeyal amiin